moment bi la yàlla di defal wér ngay am tawféex tëdd sa kawlal am na koo xamante ni jamono boobu moom lalam jëriñu ko dara mu ngi tëdd hôpital soxla it loo xamante ni yow da nga ko yor ba desal donc loolu nga yor ba desal dafa am ñu ko soxla faw nga jox leen ko donc ñun suñu conscience ci société bi nga xamante ni moom la ñuy dund mooy dañoo gëm ne solidarité dafa war a nekk une réalité lii nag ci la bokk maye ba maye sax sa deret donc lépp loo xamante ni amee nga ko nit soxla ko faw nga jël jox ko ko sa temps ci la bokk sa énergie ci la bokk sa alal ci la bokk sa doole ci la bokk waaye sa deret tamit ci la bokk ndax am na ñoo xamante ni dañ ko soxla problématique gu deret tamit ci Sénégal ñëpp gis nañ ko jafe-jafe bu mag la Euh, waa CNTS muy centre national de transfusion sanguine di ci def liggéey bu am solo ak ci seen i yi ñuy ñaan aussi l'état du Sénégal mu gën leen a renforcer en termes de moyens et en termes de personnel pour que ñu gën a mën a yaatalaat ñu gën a ñu lancé waat aussi un appel par rapport à la disponibilité euh, des des banques de sang parce que tey jii bari na dëkk yoo xamante ni tey banque de sang amu fa nga xamante ni bu fa accident amee musiba mooy xew parce que fi ñuy jëlee nit ki ak fi ñu ko war a yóbbu dafa sori donc les les les établissements sanitaires yi nekk ci biir Sénégal ak lu mu sori sori ñoo ngi interpeller le ministère en charge de la santé pour mu yóbbu fa li nga xamante ni moom mooy euh, établisse moom mooy banque de sang yi parce que c'est extrêmement important ñu gën leen ci soññ parce que bi ñu jógee ci Covid bi dañu foogoon na njàng mu rëy am na à travers tous les départements ministériels mais surtout le ministère de la santé te gis nañ ne budget bi euh, euh, franchement ren boo xoolee la loi de finance initiale solo siñ ko jox ba tey des na par rapport ak fi nga xamante ni foofu la war a jëm donc loolu tamit ñu ci interpeller le ministère de la santé di ci interpeller le président de la république xam ne bala nga ne naam nekk fa on ne peut envisager aucun développement sans que nga am wér-gu-yaram soo amul wér-gu-yaram nooy développer quoi que ce soit donc il faut de la santé tey jii bu ngeen amuloon wér-gu-yaram du ngeen ñëw fi di talal seen micro yi donc ku amul wér-gu-yaram tey mënoo xëy donc te tey jii wax dëgg yàlla sunu hôpital yi fees na dell ak ay pathologie yoo xam li ci gën a métti sax mooy feebar yoo xamante ni euh, daanaka àdduna dépassé na ko léegi c'est des maladies d'une autre époque donc moo tax taxawaay bi am solo ma ciy féliciter euh, le mouvement le serviteurs euh, ci ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo am initiative bi muy mari fay ak ñi nga xamante ni ñoom la ci àndal ànd ci ak le mouvement les serviteurs te lii lay lay digal moom laay ñaax moom laay soññ les serviteurs fu ñu mën di nekk ci Sénégal ñoo ngi koy def bu baax a baax un peu partout au Sénégal lépp loo xamante ni dafa dugg ci citoyenneté lépp loo xamante ni dafa dugg ci volontariat lépp loo xamante ni dafa dugg ci euh, utilité publique bu ñu leen fa demee nañ ci jiitu wala ku leen ci jiitu it ñoom nañ leen ci fekk et je pense que ne y tellement de choses à faire et que la jeunesse sénégalaise a besoin aujourd'hui de se réconcilier avec les valeurs fondatrices mooy li nga xamante ni moom mooy moom moo ñu fondé jeunesse sénégalaise war nañ leen a gën a ñaax ñu gën a xam ban rapport la ñu am ak le drapeau national war nañu gën a xam ban rapport la ñu am ak les sceaux de la république war nañu xam ban rapport la ñu am ak seen collectivité ak seen communauté et je pense que ne à travers ce don de sang viatique kii enseignement bi nga xamante ni moom moo nekk ci suuf njàngal njàngat mi nga xamante ni moom moo ci ne mooy kuy maye sa deret xanaa leneen jarut a wax. am ñu bëri ñoo xam ne dañuy uh, ragal a maye parce que uh, tuuti wala parce nekkul foofu ñan ngay wax ñi nga xamante ni moom ragal nañoo dem ci. Euh, hôpital yi surtout suñu genre occasion yi bu amee ngir bu doon bu doon tuuti xanaa man du ma maye. waaw parce am na ñoo xam ne loolu la ñuy wax des fois am ñoo xam ne. da ngeen wax maye deret léegi non man man man man tollu ma neen na. xam nga xam nga lenn lu ci nekk dafa am ñu ko jàngi xam ko. Mm-hmm. du yow yaay xëy ne da ngay maye mën ngaa tuuti mën a maye mën ngaa am yaram te doo mën a maye médecin ba nga fay fekk moo lay wax ndax mën ngaa maye wala mënoo maye donc nañu am yéene dem joxe ko ndax xamal ne saa boo ko joxee lijjanti nga loo xamante ni suñ la ko waxoon sax yow nga téye sa gémmiñ voilà donc je pense que ne c'est un nag civique un acte citoyen boo xamante ñoo ngi ciy soññ sénégalaises ak sénégalais yëpp. d'accord lu jëm ci wàllum euh, question d'actualité nga baal ma rek occasion la tey gis nañ la lu jëm ci wàllum arme yi nga arme yi nga xamante ne ni jënd nañ ko ñëw ko teg commission d'enquête parlementaire tey jii yow lan moo ci sa gis-gis sama gis-gis mooy fépp fu ñuy dugal dërëmu Sénégal sénégalais yëpp war nañoo xam fan la jóge ak fan la jëm ndax ñoom lañ koy defal xam nga yenn saa yi ñun suñu njiit yi day mel ni seen alalu bopp la ñuy jël di ko jëfandikoo dafay mel ni da ngay dégg sax euh, gouvernement du Sénégal def fen dara nga dégg ku ne jóg taxaw naan président may nañu wala ministre nangam may nañu kenn mayu leen ko seen alalu bopp la seen alal la. donc alal joo xamante ni Sénégal la ko moom baax nañu saytu ko surtout bu fekkee ne coow lu mel nii daf ci jóg donc c'est même dans l'intérêt du gouvernement mu clarifier exactement. li nga xamante ni moom moo ci xew et la meilleure manière de clarifier les choses leeral ko li ci gën mooy commission d'enquête boo xamante ni dina leeral mbir yi euh, ministre en concerné yi nga xamante ni yëpp laale nañ ci dinañ leen woo déglu leen suñ leen dégloo ba pare nag après ñu wax askanu Sénégal li nga xamante ni moom moo ci xew e je pense que ne c'est une bonne chose euh, di féliciter l'honorable député Abbas Fall bi nga xamante ni moom moo porté la commission d'enquête député yëpp la ko defal et dafay wane ne rek li woon wonni na am ñu gis ni am ñu gis ni ki nu jox marché bi de gré à la et aussi koo xam ni euh, ñu ko ñu tuddee ko dem ba tuddee ko criminel ndax tamit dañ ko lancé mandat d'arrêt international lan mooy. commission d'enquête moom mooy leeral loolu yëpp. Hmm. d'accord tey jii lu jëm ci seen wàllum oto yi ñu nar ñu seen loxo bëgg leen jox 700000 kese lu tax état tey xaar ba euh, tey jamono ji mu def ko tey jii yow lan mooy ci sa gis-gis tamit. Euh, li may ñaan rek mooy li ñu yóbbu assemblée nationale ñu mën koo def ci sunu teeyu bakkan. def ko ci fulla def ko ci fayda xam ne euh, askanu Sénégal soxla na assemblée nationale mbay mi soxla na ko càmm gi soxla na ko napp gi soxla na ko euh, ñu lijjanti oru Sénégal fan lay dugg soxla na ko phosphate Sénégal sunu géej gi nga xamante ni mool yëpp ñoo ngi dee ci géej gi léegi wala amatuñu liggéey euh, loolu moom a gën a yitteel ci assemblée nationale bi ñu jëm te ci loolu laay xëy ci loolu laay gont loolu rek moo ma intéressé. Macha Allah.